asalaamaaleykum mbokk ci Thiès asalaamaaleykum mbokk Sénégal maa ngi leen nuyu ko si nekk Boulogh ak Sénégal tey ñoo fi ànd ak yéen ba bureau ci biir bâtiment bi dafa am benn taximan boo xam ne Thiès ñàkk bakkanam jaay si pour cent trois naan moto naan ci ay kaf la ba tax ñu ànd ak yéen ñu xool taximan boobu ñuy wax jabel kan jaay si pour cent trois day wax. mosabilillahi bismillahi rahmani rahim Euh, man la Mamadou Samb euh, nekk vice président des collectivités taximan de Thiès. waaw daabel euh, dafa nekk koo xamante ni bu baax la ci ñun suñu biir yàlla def fu mu toll mi ngi kafal ñun agréé ci mu am ci koo xamante ni xam nga li ñuy wax diggante pël ak séeréer kalante bi ñuy kalante bu ñu toll dañuy kaf ak moom ki mu doon wax ak bu ñu toll dañuy kaf bu ñu toll nii aw a jàpp bëri ni di kaf di ree di la ndogalu suñu borom ñëw mu daanu mu daanu ñu woo sappoon ñëw ñu jël yóbbu hôpital euh, ñu ne dafa am malaise euh, diggante bi dëgg yàlla boobu tooguñu ñëpp ñu jël engagé wu yëkkati def li ñu mën lépp pour euh, fexe bu mu jugaat ba yàlla def li jël suñu yëg ne am na benn malaise mu xañ na ndogal a ñëw euh, jaaree ko fii mais nag du xeex du dóor bu ko dóor du dara kenn dóoru ko kenn waxu ko lenn lu may ah kaf kaf lañ doon def diggante gàmm moroom morom ma ba lii arrivé kenn dóoru ko parce que yàgg nañoo nekk foofu di kaf ak moom di kaf di ree comme ñu ñëpp dañuy dajaloo foofu bokk benn gaaras di kaf di ree euh, comme ni ñuy nekkee gàmm ñoom di kaf di ree xam ne boobu lañ doon café ba yàlla def mu daanu li mu daanoo sax ñun ci bopp jaaxal nañu lan moo ko war a mën a daaneel dinañu woo sappoor mu ñëw ñu jël ko yóbbu hôpital waaw kooku mu doon café actuellement xañ na bi ñu ñëwee ba yàlla def mu génn àdduna ñu koy waajal pour yóbbu ko day di xawoon a am jafe-jafe wax dëgg yàlla ñu ngi gërëm euh, commissaire bi gërëm tamit euh, gouverneur euh, gërëm procureur bi parce que vraiment ñoom it mooy xam nañ ne euh, peut-être euh, du ñàkk parce que li sàppo di ñëwee di di laajte ci lan moo ko dal interview bi ñu def bi ñu def ñoom xañ euh, na dañ ci bind na dañ ko dóor wala dañ ko doon bëre da doon bëre lañ wax sax parce que dañ ko dóor mais ñu demee ba xam ne lii parce que dégg naa ci biir yi waa ci benn mbokkam yàlla xam ne mi ngi woon suñu biir ak douanier ci chef de douanier la bokk moom moo ñëw nee na jamono bi muy nekk hôpital moom ñëw na seet si ko mais lam ko xamal dane ko euh, man de xeexuma xuloowuma euh, lii ma ndogalu yàlla la nag ki ma doon wax ak sama gàmm la dañ doon kaf di te yàgg nañoo kaf di ree ba lii arrivé ñu ma daanu waaye nag man topp ma ko lenn waaw topp ma ko ci lenn te wax dëgg yàlla rafetal ko ba mu rafet kooku tamit ne kon dinaa jóg tey ngir mun a témoigner nii ba mu ko témoigner nag police ak ci euh, kanamu procureur xañ na ci la procureur sukkandiku xañ na kon lii kaf la woon ndogal suñu borom yi parce que démb dañ ko deewoon nañ leen entendre leen ñoom ñëpp daanaka pour la journée démb parce que démb ñëpp taximaan yi dañoo gumboo fi dajaloo fi ngir jàppale ko ngir fexe ko yóbbu Touba jébbal ko euh, boromam ñu gisee kayit yi nag ñu yëkkati kayit yi après ñu xam ne kayit yi kon comme am na bëri bu mu amoon walla coow lu mu amoon euh, il faut ñu jéem a enquête loolu ba xam fan la de dëgg yàlla ñu ñoom it ñu def ci li nga xam ne moom la leen yoo sant enquête leen laaj leen ñu expliqué wu ba ñu xam ne lii du lenn lu may euh, ndogal a ñëw ñu ne kon dañ leen di bindal certificat décès bi dem yóbbu ko yóbbu jébal ko suñu borom